إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب عباد الله يجب الإيمان بك يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق وسواء في ذلك ما أقلناه أو جهلناه وأول ما وصف الله به المتقين الإيمان بالغيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب والغيب كل ما غاب عنا أخبر الله به في القرآن أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وكان الخبر يقينا مثل حديث الإسراء والمعراج قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقصة الإسراء التي في صحيحين وغيرهما مشتهرة وأنه صلى الله عليه وسلم أتاه الملك وأنه أركبه البراق وخرج به من المسجد الحرام ووصل به إلى المسجد الأقصى ثم بعد ذلك أرج به إلى السماء وأنه وجد الأنبياء وأنه عمهم والمعراج أشير إليه بأول سورة النجم فإن الله تعالى ذكر فيها الإشارة إلى المعراج في قوله والنجم إذا هوى حتى وصل إذا قوله جل وعلا إذ يخشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى yéen mbokk jullit ñi ñi ngi sant sunu boroom subhanahu wa taala ci xéewalam yi nga xam ne mënuñu koo peeg waaye di ko jéggulu it sunu bakkaar yu bari yi di ko ñaan mu musal ñu ci sunu ayu bakkan di seede ne ku mu jubal kenn mënu koo réeral ku mu réeral kenn mënu koo jubal yàlla rekk yoo ñu koy jaamu nañu koy jaamoo it kenn rek ko war a jàngale muy sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent boobu lañu sunu borom waxoon gannaaw bam ñu waxee ne nañ ko ragal nam ya yow ñu ragal ko ko te kenn ci ñun bu mu dee lu dul da koo jébbalul subhanahu wa taala mu ne nag saab yonente ngoog ma yónni ci yéen lum leen indil jël leen ko lum leen tere bàyyi leen ko loolu moo tax ba yow mbokk julit xamal ne wareef la ci yow nga gëm bépp xabaar bu jóge ci sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam xabaar ba jaar ci yoon yu leer yu wér ndax du lu ñuy waxal yonent yi bii yépp wér waaye loo xam ne tege na ci téere sunna yi ña fannoo fann googu wéral na ca yonent ba la jóge looloo dañoo war a xam ne dëgg la na doon comprendre nañ ko wala comprendre nañ ko la yàlla jëkk a taggee jaamam yi ko ragal te nar a tabbi aljanna yal na yàlla boole ñu ci mooy ña nga xam ne dañoo gëm lii di kumpa sunu boroom mu ne téere baa ngi nii benn sikki nekku ci benn yoon la ñeel ñan ñeel ñi nga xam ne dañoo gëm kumpa mbokk kumpa mooy la alquran wax wala sunna wax ko te ñun gisaguñ ko dañuy wóor ne loolu dëgg la loolu nag bokk na ci yow julit nga war a gë nga war a gëm ne am na benn guddi ci guddi yi sunu boroom subhanahu wa taala ci kattanam jële yonent bi salallahu alayhi wa sallam ca makka yóbbu ko ca madina jële yonent bi alayhi salaam ca makka yóbbu ko ca Palestine ca masjidul aqsa delloo waat ko makka ci benn guddi bi gannaaw ba mu ko yéegee ci kaw asamaan loolu dañuy fekk sunu borom mi ngi ñu koy wax di bàkk boppam mu ne sell ñeel na ki nga xam ne moo tukkil ab jaamam ci benn guddi jële ko ci jàkk jooju ñu warmaal jooju di màkka muy néeg bi njëkk a tabaxal yàlla ci kaw suuf kan moo ko tabaxoon jaamam ba ibrahim yóbbu ko ci ñaareelu néeg biñ ko tabaxal ci kaw suuf kan moo ko tabaxoon jaa jaamam ba yanquub mi ñuy tudde israil ca ay doomam ñu tudde leen bani israil sunu borom subhanahu wa taala mu ne foofee nga xam ne fa la ko yóbbu te mooy ca masjidul aqsa di loo xam ne place bu mu barkeel la ki def lii day mooy kiy dégg lépp mooy kiy gis lépp subhanahu wa taala mbokk ba limee ci téere sunna yi gën a wér dañuy fekk ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam nettali na sahaaba yi gannaaw bam nettalee waa màkka tukki boobu nan la demee mooy benn guddi la dem ba tëdd jibril alayhi salaam daal di koy dikkal indil ko benn waruwaay boo xam ne dañ koy tudde buraaq mu xaw a toll ne fas mu daal di génn ànd ak moom ñu war a jógee màkka jëm Palestine diggante bi nekk na six cent kilomètres waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na li mu war fu seen bët seen rek tànk bi tege na foofu loolee bi nga xamee ni ni yegg si nañu sunu borom daal di ko fay won ay kawtéef daal di koy jël yéega ko kaw asamaan bi nga xamee ni yéeg na ko kaw asamaan won na ko fa ay kawtéefam daal di koy wàcce waat bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàccaat na ci benn guddi jibril delloo si ko màkka mu xëy suba mbir mi di xabaar bu yéeme yàlla jox na ko fa ay yóbbante lu ko war a jottali yonent bi xëy dem toog ca kaaba ga abi jëral daal di ko fay fekk daal dina ko waa muhammad ana lu bees tey mu ne ko li bees tey mooy bi ci guddi sunu boroom jëlee na ma màkka yóbbu na ma Palestine delloo si ma mu ne ko ndax su ma woo waa Màkka lii nga ma wax da nga ko répété mu ne waaw waaw Abi Jahal daal di yuuxu kaay leen xabaar ñëw na waa Màkka yépp ñëw mu ne dégg leen li Muhammad wax nee na fii nga xam ne mooy Palestine nga xam ne ñun weer la ñuy dox ak sunu gilam yegg fa doxaat weer dellu si nee na biig ci guddi dem na fa dellu si yeneen ci bi alayhi salaam ne leen waaw yàlla yóbbu na ma fa dellu si ma sunu borom bokk na ci ay kaaw téefam waa màkk nattu nañu ko na ko waaw loo xam ci xabaar sàngam suñu dëgg dafa demoon yonent bi détaillé lépp ci kattanu yàlla lii mbokk yàlla def na ko muy benn fitna ñeel nit ñi ñenn ñi nga xam ne seen ngëm da doon doog a dugg ci lislaam sax am nañu te dellu gannaaw waaye xoolal abubakarin saddiq keroog biñ koy tuddee ak siddiq lan moo ko waral mooy moom fekkiwul woon mbir mi am gaa yu dem na ko ah sa waajure tey wax na xabaar bu doy waar mu ne lu mu wax mu ne nee na biig ci guddi dem na Palestine dellu siwaat Aboubacar ne negam moo ko wax day dëgg la keroog lañ ko tuddee ak siddiq loolu mbokk war a doon position julit negam yeneen ci bee ko wax rek dëgg la waaye waa Makka ñoo perte ñoom ñi weddi woon yeneen ci bi ngir loolu gaa yi xoolal tey jamono ji ñuy dund ku demoon wax waa makka na leen jamono ngi ñëw doomu aadama dana mën a dajale ay matière yum dina ci suuf sol ci am ndox defar ko muy néeg mu jël juróomi téeméeri nit ak seeni bagage jëlee leen fii nga xam ne nii tey mooy Sénégal wàcce leen Makka ndax ñoom dañ ko gëm abadan mënuñu koo gëm abadan moo ne de yéen yéen a ngi koy dund loolee ñu doon yéem muy 600 kilomètres aller retour di 1200 kilomètres ñu ne loolu nu mu mën a amee ci benn guddi tey avion yi nga xam ne moom la ñuy daw da ngay gis ne li ñuy tudde ay supersonique buñ ko doon daw duñ ko def une heure de temps am na avion yoo xam ne jóge Makka dem Palestine dellu siwaat duñ ko def une heure de temps kan moo defar loolu mooy benn jaamu yàlla kan moo jëla yonent bi Makka yóbbu Aqsa mooy borom jaam yi sunu borom bi nga xam ne moo bàkk boppam ne subhaana allazi asra bi abdihi mbokk lii ma lay woon compagne nii tey lii nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ci sunu siècle bi soo dellu woon siècle bi ci gannaaw kenn mënu koo gëm ana sunu maam yi nuñ leen mënoon a expliquer man ngaa jël benn xott teg ko sa nopp di wax ak muudu ma ne États-Unis bal lu gën a yéeme nga jël xott bi jàkkaarloog moom di wax ak muudu ba nekk te Japon loolee mbokk kumpa la woon goo xam ne tey ñoo ngi koy dund loolu mooy fitna ba sunu borom fitnaaloon nit ñi waaye mbokk gannaaw loolu sunu borom yëkkati na yonent bi kaw asamaan loolu moom ndegam waa màkk gëmuñu ni mën naa dem Palestine gii dellu si waat waxumaa ko asamaan loolu moom waxi noppi la ndax mas nañ koo wax ni bala ñu laa gëm nga yëg kaw asamaan te it say pexe rëy na ñàkk laa gis rek du tax ñu gëm ne yaa nga kaw asamaan xanaa lu dul nga wàcce ci ñun téere bu ñuy jàng dellul suratul isra waaye yow julit gëmal ne sa borom subhanahu wa taala yëkkati na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yóbbu ko ca kaw asamaan ya asamaanu benneel mu visité ko asamaani ñaareel ba baa asamaani juróom-ñaareel daal di gis la fa nekk ci ay malaaka gis la fa nekk ci kaawtiif yi boroomam yoo xam ne nii yu màgg la ba mu demee ba sidratul muntaha di benn place boo xam ne fa la jaami yàlla yi yem xatta malaaka yi gën a kawe mënuñu koo paase sunu borom ne subhanahu wa taala mu ne nee na foofu laa dencal àjjana bi may dig julit ñi mbokk àjjana mi ngi ci kaw asamaan yi yal na yàlla tabbal ñu fa indaha jannatul mawa sunu borom nee na fa la wax yu ab yonentam la nga xam ne mooy wax yu gu màgg googu mu ko wax yu loolee mbokk lu doon dalal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la waa màkk weddi nañ ko xadija mi ko doon dimbali faatu na abi taalib faatu na yonent bi tumuranke na dem na taif ñu dàq ko boole ko ak xale ya loolee lépp mu tumuranke sunu borom ne ko kaay su dee ne waa suuf dañ laa soofantal day xamal ne waa asamaan ñoom ku ku ñu fonk ku ñu fonk nga te la ko yéege ko asamaan wan ka fa la fa nekk ci ay milliards ci ay malaaka wan ka fa la fa nekk ci ay kawtéef loolee dalal xolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolee mën a doon lu koy dëgëral dëgëralaat ci position bi mu nekk waaye yow mbokk julit xamal ni heure boo xamee ne yaa ngi tuumurank ci kaw suuf mbooloo ma nga nekk ñu ngi lay saboote xamal ne yàlla am na ay jaamam yu ñuy wax ay malaaka ñi ngi ci kaw asamaan yi fonk la lool bëgg la lool nu raw sunu doom yi niñ bëggee bekkaam wala ñooy football fee ci Afrique du Sud te mën naam ñooñu ñu bëgg sax xamuñu ndax Sénégal am na ci kaw suufam déet waaye teewul ñu bëgg leen malaaka yooyu heure boo dee ba dem yowmal qiyaama ca la ñuy wàcc ci yow naan la kat ay yow waaju baax ji inna alladina qaalu rabbuna allahu summa istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaika alla taxaafu wala tahzanu وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أي يو جنب باخبي يو دخمو نيوون وأن نيو نكن كو أسمان دي نيان يالا بال نيان يالا جيغل يكمتي وون ngir daje ak yow loolu mbokk dañ ko war a gëm ci kumpane am na amma sunu yonente sallallahu alayhi wa sallam moom yàlla da ko koo woon mu gis ndax moom moo yonente xeet bi moom moo war a gën a dëgër li nga xam ne mooy ngëm mbokk tey jii sunu boroom may na doomu aadama mu mën a gis loo xam ne ni sunu maam yow boo ko divisé woon ay millions sax mënuñu koo gis ka mooy la gën a kawe ci ay galaxie ci kaw asamaan yi ba tey xamuñu fan la yem loolu lépp mi ngi nekk ci asamaanu benneel amma sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam yàlla yéegi na ko foo xam ni benn doomu aadama musu fa yéeg te du fa yéeg abadan ba faw bokk na musiba boo xam ne ni sunu boroom nattoo nañu ko ay nit ñoo xam ne dañuy bàkk seen bopp naan dem nañ ci kaw asamaan yi wala seeni taaliba di leen bàkk naan dem nañ ci kaw asamaan yi am na benn waay bu nat yàlla nattoo woon Sénégal nee na yàlla yónni na ko mu nekk xalifatullah fil ard ba muy nettali mbir mi day wone ba muy def al miraj dem na asamaan yi juróom-ñaar asamaan bu nekk mu ne daje naa faak sañ diw sañ diw ba baa muy yegsi ci kaw suuf tey jii am na mbooloo mu bëri ñoo xam ne ñu ngi ko topp ci réew mi musiba mun ta passé loolu da nga dégg ñu ne sañ diw nim mii na mbeddi asamaan yi miinowu ko mbeddi suuf mbokk loolu caaxaan la boo doon am na kuy ñaareel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci miraj abu bakar lay doon wala omar wala usman wala ali loolu ay caaxaan rek la moo tax it dem nañ ba tey benn bandkat bu mag bu jiite ndaw ñu bari ci réew mi nee na ab sëriñam defal na ko loolu nga xam ne mooy rañaan dem na ba ci yàlla ba ndekete yoo te yàlla may na ko mu yaram mu jaam yi ba tey ay junni junni ndaw ñu ngi ko topp mbokk loolu nañu xam ne amul kenn la yàlla subhanahu wa taala jagleeloon yëkkati ko ci kaw asamaan ya gën a kawe waxante sa ak moom wax yu ko num ko wax yu musu koo defal kenn ci ay yonentam mboolem yenentam malaaka yi dañ leen doon fekk ci kaw suuf di leen def wax yu sunu yenente alayhi salaam dong moo am jagle googu yal na yàlla boole ñu ca ñëkk a gëm gëm la mu indi woon wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad ala alihi wa sahbihi ajmain qala taala سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير عباد الله ليل أكرم الله فيه نبيه وأراه من آياته الكبرى وفرد على أمته صلوات الخمس التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين فرض الله خمسين صلاة في اليوم والليلة ثم خففها على خمس صلوات في العمل وهي عن خمسين في الصواب فواجب المسلمين إذا في كل عصر ومكان أن يشكروا الله على هذه النعمة بأداء ما أوجب الله عليهم فيها من الصلوات الخمس في اليوم والليلة في أوقاتها وفي بيوت الله وأن يتجنبوا الذنوب التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في هذه الليلة رأى أهلها يعذبون أشد العذاب ومنهم تارك الصلاة واعلموا رحمكم الله أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أي مكو جلد نيجي صلاة سنت سنو بروم ci xéewalam yu màgg yi nga xam ne gëm leen na ba ca gën a màgg mooy diine ji mu leen boole moo gën a màgg bakkan ak alal ak njaboot diine jooju nañ ko fonk sunu borom nee na sell ñeel na ko moo jël ab jaamam di la ko makka yóbbu ko fee nga xam ne mooy al aqsa ngiree woon ko ay kawtéefam kawtéef yu màgg yooyu nga xam ne keroog ba yàlla di déeyoo ak moom bokk na lum ko fa jox muy li nga xam ne muy julli juróom mooy li gën a màgg lu ñuy defal yàlla ci kaw suuf gannaaw wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah la gën a màgg mbokk xam leen ne muy julli sunu borom yàlla ba mu koy farataal ci yenente bi da koo joxoon ne boo demee jaam yi nañ may jullil juróom fukki yoon xam naa dana yéeme ci yow juróom fukki yoon naam ndax sunu borom subhanahu wa taala bim ñu bindee di ñu indi ci kaw suuf lenn rek taxoon mu bind ñu mooy daf daf ñoo bind ngiree ñu jaamu ko bind ñu woon ngir nelaw bind ñu woon ngir sëy bind ñu woon ngir maçon menuisier la taxoon mu bind ñu rek mooy ñu jaamu ko demel na jaam yi nañuy julli juróom fukki yoon ci bis yal na yàlla fayal ñu sunu yonent yàlla Muusa ba nga xamee ne yonent bi ñëw na mu ne ko ay Muhammad lan la la sa borom jox mu ne def maa jox juróom fukki julli mu ne ko déet loolee dana diis sa xeet demal ñaan yàlla mu wàññil la ko yonent bi alayhi salaam dem yàlla di ko wàññi muy dellu ci Moussa Moussa di ko yebalaat muy dem yàlla di ko wàññi ba mu demee ba des juróomi julli sunu borom ne ko Muhammad demal joxoon naa la juróom fukk juróom yi ma la jox képp juróom yi ma la jox képp koo xam ne nii taxawal na ko danaa ko may yoonu juróom fukki julli ay yow jaamu yàlla bi góor nga wala jigéen heure boo taxawee di julli xamal ne sama tisbaar bi may julli kat dama ko woonu julli fukki yoon léegi nag sama borom baal na ma juróom-ñeent yi nee na ma naa def benn bi ma gaa yi ndax xel nanguwul ñu rafetal benn boobu loo waroon a def fukki yoon sunu borom mu ne baal naa la juróom-ñeent yi defal benn bi rek loolee war nañoo góorgóorlu sunu kemtaleel kattan jéem a rafetal julli googe ci dëppale koog sunna ci rafetal toroxlu bi rafetal rukoog sujub bañ koo patam patamee dem suñu yoon mbokk tukki bi barkeel boobu tukki boobu nga xam ne tukki mënu koo gën a barkeel bu dee muudu daa jóge Italie indi ay millions na nga xamee ni nii la yonent bi indi loon xeetam moo gën lépp lu ab tukki kan ma sa indi te mooy indi ñu waxtu julli juróom loolu moo tax ba wareef la ci bépp julit ak foo mën a nekk ci kaw suuf ak jamono joo mën a doon nga war a sant yàlla ci xéewal gu màgg googu te mooy góorgóorlu di taxawal li nga xam ne mooy waxtu julli juróom bañ koo mankil abadan nga la way bul yem ci ñi nga xam ne rek naam daan julli waaye num leen neex la ñuy jullee fàttalikul yow sa borom def ne yonent bi alayhi salaam day bi mu koy jox julli da koo jële ca jàkka yóbbu ko ci jàkka min al masjid al haram ila al masjid al aqsa loolu it mu lay won ne ndikk ci yoote julli fa nga xamee ne fa la gëne mooy la nga xamee ne ñu defee ko ca jàkka ja loolee yow bu dee góor nga bu dee yaa ngi dégg noddu ga xamal ne farata la ci yow nga daal di dem wuy ji yonent bi alayhi salaam dégg ci lu rëy rëy bokk na juróom-ñaar ñu yàlla di keral ci arshu rahman yowm alqiyaama koo xam ne xolom mi ngi aju woon ci jàkka da doon mébét waxtoom yépp mu jule ko ci jàkka bokk na lu yonent bi alayhi salaam teg ko doon na mébét dem ci kër yi gannaaw ba ñu noddee kum fekk kum fekk sa biir kër ñëwoo ci jàkka ji mu taal kër gi ci sa kaw lii lépp mbokk daf ñuy jàngal màgga yu julli waaye xamal ne yàlla bi muy faratal koor bi muy faratal zakat bi muy faratal aj lépp da koo def ci kaw suuf amma bu dee jullee moom da koo jox da koo jox yonent bi alayhi salaam ci asamaan yu gën a kawe mu lay jàngal ne heure boo xamee ne yow munoo def la yonent bi defoon mooy sa jëmm ji dem kaw asamaan ngalla waaye fexeel ba sa ruux dem kaw asamaan boo kàbbari di julli nga xam ne yaa ngi déeyoo ak sa borom subhanahu wa taala ngay ñaan sa borom subhanahu wa taala loolu mooy la gën a màgg ci loo xam ne daañ ko yëg ci biir julli googee waaye ay yéen mbokk jullit yonent bi alayhi salaam ba nga xamee ne ni ñëw na indi xéewal gu màgg googu muy julli indi waale na it lu tiitlu lool yàlla won na ko aljanna ak xéewal ya fa nekk yàlla won na ko sawara ak xéewal ya fa nekk waaye àjjana kenn duggugu fa sawara yi kenn duggugu fa waaye am na place boo xam ne dañ koy tudde barzaq muy loo xam ne mi ngi nekk diggante àjjana ak sawara ñi dee fa la ñu nekk yonent yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi gis ñu bari ñoo xam ne ci xeetam ñi ngi leen di mbugal foofu bokk na ci ñooñu gis nañu ne bokk na ci loo xam ne indil na ko xeetam mooy julli gu màgg googu waaye indi na lu tiit lool ñeel xeet bi sunu borom yàlla subhanahu wa taala won na ko lenn ci ay jaam yoo xam ni ñi ngi leen di mbugal mbugal yu tar ci seen nekk gañu nekk ca barzak gis na ñoo xam ne ñu ngay tojjate seen bopp ya heure bu tojee ñu boolewaat tojaat mu ne jibril ñii ñooy ñan mu ne mooy ñii nga xam ne ñoo doon sàgg ni julli sa xeet nii la yàlla di def ak ñoom ba baa yowm alqiyaama ñu doog a xool seeni dossier yonent bi alayhi salaam gis na fa ñoo xam ne dañ daan nekk di ci nit ñi di fen di def ay xutba di lor nit ñi di leen nax di leen war a ko wuruj ne yonent bi gis ña nga jël ay lu ñuy tudde ay sart di xotti seen gémmiñ ya ba baa mu yegg ci seen loos ya loolee ba mu ko waxee jibril ñi ñan la mu ne ko mooy fenkat yeeg ak ñi nga xam ne ñooy nekk di xutba sa xeet bi di woo nit ñi ca la nga xamee ne mooy ak réer yonent bi alayhi salaam gis na fa ñoo xam ne seen biir yaa ngi toll ni ay néeg ay jaani ñangoor yu rëy rëy nekk ci buñ jógee rek fakka salu daanu mu ne ko waa ñii ñan la mu ne ko mooy ñii ñoo ñi nga xam ne ñoo doon lekk riba yonent bi alayhi salaam gis na fa ñoo xam ne ñi ngi leen defal ay wey yoo xam ne nii ay wey xànjar la ñi ngay xotti seen yaram ya di ko lekk mu ne ko waa jibril ñi ñan la mu ne ko mooy ñii ñoo doon xotti war may jurit ñi di leen jëw di lekk seen yaram yi naka noonu ni gis benn xunti boo xam ne ña ngi ko taal dugal ci ay góor ak jigéen ñu leen di mbugal mu ne mooy jibril ñi ñoon la mu ne ko ñi mooy ña nga xam ne ñooy njaalookat yi am na fa ñoo xam ne ña nga leen jël ay yen yu diis a diis buñ ko yëkkatee ànd ak moom daanu boobu na ko mu jibril ñi ñan la mu ne mooy ñii ñoo ñu jëlal kóllëri nit ñi seen alal la wala seen lu mu mën a doon daal di koy yàq sàgge na ko nii la yàlla di def ak ñoom mbokk yi yëpp yonent bi won ñi dañuy jàngal ne war nañu góorgóorlu suñu kéemtaleel kattan yonent boobu lu mu wax rek dëgg la ñu daal di góorgóorlu ci lam ñi indi doon lu ñuy tax a taxe ñu ñu taxaw ca ca la ca gën a màgg muy julli xam leen ne amul lenn lu mën a musal doomu aadama bi yowmal qiyaama lu mel ne julli yonent bi alayhi salaam nee na jaam bi bu ñëw yomal qiyaama sunu borom danaan xool leen téere bi xool leen nu mu def ak julli suñu xoolee fekk julli yépp baax na mu ne tëj leen téere bi yóbbu leen ko aljanna baal leen ko lu ci des lépp amma bu ñu xoolee fekk julli baaxul mu ne vérifier leen téere bi yépp lu mu mas a def xool leen ko te yonent bi alayhi salaam nee na ku ñu xool sa dossier daañu la mbugal yal na yàlla musal ñu ci loolu loolu moo tax nañ góorgóorlu ci julli te mbokk ki mën a góorgóorlu ci julli mooy ki bàyyi ay caaxaan kooku rek a mën a góorgóorlu ci julli inna salata tanha anil fahshai wal munkar tànk yaa ngi nekk ci caaxaan xamal ne julleegoo julli gi yàlla gërëm loolee nañ ci bàyyi xel bu baax loolu it bokk bokk na lu ñuy mujjee muy loolu nga xam ne mooy al isra wal miraj tey jii weer wii ñu koy jàpp ne ca la amoon lu bari ci àdduna bi biddaa yu dul jeex ñoo ngi ko ciy def soo ñëwee sunu réew dañ ne mooy leylatul isra am na ñu cay woote ay gàmmu am na ñu cay woote ay màggal am na ñu cay rey nag yu dul jeex ay tant yu dul jeex bokk na laaj bi ñu leen di laaj ma ndax yéen loolu ngeen def yonent bi ak sahabaam daa lañ ko def laa wallahi yonent bi ak sahabaam musuñu màggal guddi isra wal miraj bal amul kenn koo xam ne mën na laa jox tegtal ci ne guddig ñaar fukki fan ak juróom ñaar moom mooy guddi gi yonent bi defal isra wal miraj ay njort rek la ma anzala allahu biha min sultaan waaye même bu doon d'accord nañ ne ci guddi googu la ndax yow mi ka jagleel ak jaamu yàlla foo jële jaamu yàlla googu ndax yonent bi moo la ko jàngal ndax sahabatul kiram ñoo la ko jàngal ndax yow da nga leen a gënoon a bëgg tuyaaba ndax da nga leen a gënoon a bëgg màggal mbir yàlla looloo tax ba mbokk jullit góorgóorlu leen nañuy màggale isra wal miraj mooy lan mooy tous les jours bis bu nekk juróomi yoon nga fonk say julli màggal ko loolu rek la moytu leen bépp daje bu ñu leen di woo nit ñi jël di ci tukki ñu yàq ci millions yu dul jeex ay accident yu dul jeex ci loo xam ne biddaa kese la nga la waay moytu leen ko cayit mbokk même bu doon te ne feet googu sax mooy lu lislaam rafetlu la moo xool leen tey jàkka boobu yàlla tudd muy masjidul aqsa sunu boroom yóbbu fa sunu yonent alayhi salaam wàcce yonent yi nga xam ne ñoo faatu woon yonent bi jiite leen ca jàkka jooju mbokk jàkka jooju tey anamu ni ngi nekk ci loxo yahud yu bon yi bés bu nekk ñu naan daañ ko toj wala duñ ko toj daañ ko toj wala duñ ko toj yahud yi ban yooyu tey ñoo ko occupé ndax tey jullit ñi war na ñuy nekk di bànneexu ci leytu isra wal miraj di rey suñuy nag aka tuwaletu gannaaw ba nga xamee ne jàkk jooju mi ngi ci loxo julit ñi aka ñu wuuteeg ki nga xam ne mooy salahu din al ayub mi tubaab yi doon tudde saladoy nga xam ne ci histoire moom moo goreloon masjidul aqsa gannaaw ba koy yéefir yi jëlee lu jóge téeméeri at ba muy xeex pour goreel ko gis nañ kenn mësu koo gis mu rey ba bis mës nañ koo laaj ne ko waaye yow lu tax doo rey mu ne man nan laay nekk di reetaan ca masjidul aqsa mi ngi nekk ci loxo yi ah noonu yàlla yi loolu mbokk mooy yëg-yëg boo xam ne na ngeen góorgóorlu bàyyi ci xel xam leen ni am na ay ndaw ñu nekk Sénégal seen ité yépp mooy di jéem a def sensibilisation sunu gouvernement ak lu mën a doon ngir soutenir waa Palestine am na benn bis marche buñ ci doon def bu ngeen ko fàttewul jàkk ji lañ tànnoon fi la ñu def tey mi ngi ci loxo yahud yi yéen ndaw ñu comme neex ñëw ci ju jàkk bi julli waaye bu leen waa juif yi dañuy ndar képp ak sa bépp koo xam ne amoo quarante ans doo dugg képp ku am moins de quarante ans dañ lay dàq amoo droit julli ca jàkka ja loolee mbokk mbir la boo xam ne bu ñu munte sol suñ tenue de combat dem ànd ak ñoom di xeex bu ñu leen fàtte mukk ci ay ñaan bu ñu leen fàtte mukk ci ay ñaan sunu borom yàlla subhanahu wa taala way faalun lima yurid su ko neexoon alag waa asamaan ak suuf ci kun fa yakun waxuma nag mboolem juif mu bon boobee yal na yàlla subhanahu wa taala xettili ñu xettili bépp julit yal na yàlla xettili masjidul aqsa delloo war ko ci la nga xam ne mooy loxo julit ñi yal na yàlla yëkkati lislaam yal na yàlla yëkkati julit ñi yal na leen bëggloo la nga xam ne mooy seen diine xamal loo leen ko fonk loo leen ko musal leen ci la nga xam ne mooy seen ay noonu yal na yàlla boole ñu ci ñi taxawal julli yal na ci yàlla boole sunu njaboot yal na yàlla boole ñu ca ñu julli di texel adduna ak alaxira yal na yàlla defal ñu firdaws ni sunu wàccuwaay yal nañu yàlla may mujj gu rafet te may ñu kuutaay gu rafet sunu gannaaw اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين